maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam man ah, gan ñay tax may présenté wu waaye ñu fi dëkk xam nañu mu ñu wax sëñ Modou mbend Fall Dieng ñu di ma wooyee Modou Dieng ingénieur à la retraite ñu bari it xam ma ca ba may gune génn mosuma génn xombal ci turu Dame Dieng euh, man maay coordinateur u bi bañ ci xombal maanaam lépp luy am Euh, front ci biir Sénégal rek xombal génn ca te man maa représenté front bi nga xam ne moo ëpp doole xombal te ñooñu front non non la tudd loolu nag dama see ànd ak ay parti parti bu ngeen gis au niveau national rek am na au niveau de xombal euh, élection yi locales yi passé wane na ko te gis nañ ne 80 pour cent de la population ñu ngi nekk ko ànduñu woon ak maire bi donc ànduñu woon ak nguur gi ci euh, élection yi fi jàll kon su yowoon ne boobu ba léegi tamit li fiy dox muy ci parti politique yi kon 80 euh, pour cent yi ñu ngi woon ci ci si non d'accord ci politique bi am surtout que maire bi ci politique boobu la am am na ñoo xam nag ñoom politique gu ñu ñu koy wax euh, société civile wala indépendant comme man mais ñoom président bu fi man di nekk soo ñëwee wax sa bilan dañ lay gëm ci sa ko wax wax boobu mu wax nag am ay yaakaar yuñ ci am les hommes justes gis nañ ne peut-être am nañ ci yaakaar ba àndoon ci ba woteel kon ñu ngi woon ca biir 65 pour cent yooyu euh, Macky Sall amoon waaye bi ñu demee ba ci biir dañoo gis ne yëm doon digle waxuma euh, li ñuy wax ci quinze points yi wala ci constitution bi mais yamu diggee woon yëpp muy nombre de ministres ya muy li ñu gënoon a yaakaar ne dina créer 500000 emplois parce que ñun jiite réew ak yooyu soxaluñu mais politique système boo xam ne day tax suñuy doom yi war a def relève war a développer dëkk bi arrivé la nga la nga cay wax la ñuy gën a déglu kon soo waxee ne di nga def pôle économique de développement ñun dañ ciy am yaakaar suñ demee ba ca biir yow nga doxal ci biir région yi ay ba ay 300 milliards région bu ne nga diggee fa trois 300 millions ñu defee ne pôle yooyu ngay def ndekete yooyu yow da nga ne da jàpp nit ñi pour nax leen loolu teggi sa wax maanaam yow da ngay wax rek. pour ñu ànd ak yow mais ci réalité bi yow loola doo ca def dara cinq cent mille emplois ci pôle économique de développement la waroon a am donc cent milliards yooyu par région dafa waroon a am ci biir ay pôle économique de développement su boobaa cinq 500 millions euh, mille emplois day mën a nekk waaye comme sa wax bu njëkk àndul ak sa jëfu tey loolu tamit dañuy xam ne euh, euh, dootuñu la gëm donc cinq cent mille emplois du mën a am. mais pourtant ñun ñi nga xam ne suñu jàng màcc na ci loolu ñu nekk ay ingénieur en en en construction ingénieur en génie mécanique ak économistes yi nekk ci réew mi am nañu woon ay projets yu ñu def ñun fii même au niveau de Xombal yu wane ne dëkk bu am vingt mille habitants mën nañ fa créer cinq cent emplois te loolu soo ko calculer ci dëkk yëpp ak projet bi nga xam ne da ngay def qualité euh, dëwlin bu baax muy projet Sésame da dangay am un million d'emplois ci zone boo xam ne mi ngi nekk ci wetu Koussanar mais projet yooyu déposé nañ ko ñun jaarale ko ci ki nga xam ne moo fi représenter le conseil économique et social mais projet boobu noonu daf dafa nelaw da ngay dégg rek ci ay dëkk ñu koy def ay parti parti de ce fait da comprendre ni ñi jóguñu gëmuñu sax ne 500000 emplois mën nañ ko créer parce que suñ ko gëmoon ba jël projet yu mel noonu dinañ ne ah ñun kat dañ doon wax pour naxe mais ndekete c'est possible que ñu créer sax un million d'emplois si loolu nag moo tax man ma wala volontaire jóg dikk commencer à partir de maintenant doot du def politique mais dinaa wone yoon yoo xam ne suñ ci jaaree suñu jeunesse bi dinañ jóge ci dépravation nekk di gëm ay pari foot di gëm ay carte jeu de hasard pour yaakaar ne loolu mooy maye di gëm ne génn réew mi dem servir yeneen économie Barça wala Barça yooyu dinañ dinañ leen won ne c'est possible nga reste ci sa dëkk gëm sa bopp pour développer sa dëkk ñu nag ñu am maire boo xam ne na dafay yaakaar nguur donc fu nguur nekk rek fa lay dabi mu dem ca nguur ga ci APR gëmuloo leen ne 80 pour cent ñooy wax wuy fekk se le contraire qui devrait dire c'est plutôt 80 pour cent ñooy wax non te dinañ dinañ comprendre dinañ comprendre loolu dinañ gis loolu noppi nag la xambal jago woon silencieux muñ ba nga xam ne dañ naan la ville oubliée mais à partir de bi dinañ jóg taxaw ci xambal ñëpp képp koo xam ne gëm nga sa bopp képp xam ne tu es positif nga ñu jóg àndandoo pour commencer à court terme si référendum yi ñu won leen ne on n'est pas si on n'est pas si fou léegi dinañ leen won ne ñun yeewu nañu xam nañu ëpp ñu xam-xam ëpp ñu ay pexe dinañ taxaw com combattre euh, loolu léegi ñi nga leneen ñi nga xam ne nag communication bi moo koy moo koy jàllale maa ngi bàyyee suñu ñu yore suñu affaire communication ñu gën leen leeral ci domaine boobu nag jëwu remee waaw parti yi fii nii am na parti po bokk gis-gis bés du ñàkk réew mi PDS parti socialiste maanaam la xew ca au niveau euh, national à à Dakar su ma yeboo c'est la répercussion à xomb rek rien n'a bi paysage bi nu mu demee politiquement noonu la demee fii moo tax fii maanaam ñi topp ci leader yi nga xam seen leader rek mooy wax mais ña ca topp ñëpp derrière son avec nous au niveau du parti socialiste noonu ci même euh, au niveau de du parti de Moustapha Niass à AFP ñëpp tamit ñu ngi ñu ngi suñu ginnaaw maanaam majorité bi daal ñi nga xam ne ñoom son sont des gens juste nekkuñu ñu ne dañuy politique politicienne ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñun ci biir ki ak euh, AJ ak société civile AJPDAS euh, AJPDAS ak euh, société civile bi ñi nga xam dañ doon naka jekk dañ doon nopp rek ba élection jot ñu ñu nopp nga defee ndax loo wax rek ñun ànd nañ ca ñooñu tam jóg nañu bi yoon pour taxaw mooy comme ni ngeen leen gisee fii mag ñi am disponibilité ñëw ak ñi nga xam ne ñu ngi ñëw jox nañu seen kàddu jox nañu seen seen kii ne jàpp leen mu dëgër ñoom ñëpp ñu ngi si ak les les années comme ñi nga xam man liggéey jaamu yàlla laa xamoon lu ñu def ma ne ah loolu de affaire politicien affaire malice la mais ils sont pas intelligents parce que mënoon nañoo si li nga mën a def dige lu baax ba naxe mais mënoon nga cee def lu baax pour continuer am ñooñu mais naxe moom c'est pour un court temps rek te te su soobee yàlla référendum yi dina ko wane ak élection yi di ñëw dinañu xam fan la doole bi fan la doole bi nekk te doole bi mu ngi ci non. merci salaamaaleykum euh, man chargé de communication front du Nord Xombol maay ñëw fii di am waxtaan mooy defak ak yéen jëm ci lu waral suñu non dañ koy tënk nag yaat ma Ndiaye euh, bés du ñàkk euh, li waral ñuy àddu dafay tënku ci ay poñ yoo xamante ni dinañ ko leeral ci kanam bu ñëpp. bi ci njëkk mooy ci aspect moral ak éthique nga xamante ni suñu président def na wax waxeet ndax yéen ñëpp umpalewu leen ni bu muy nekk candidat ci présidentielle 2012 entre deux tours yi diggee woon na fi ni bis bu ñu ko falee dina wàññi mandaam 7 ba 5 ans wër ci àdduna bi yëpp wax ko mu jaral Sénégal sax bu rëy ñu nag suñu bopp ñu jàppee woon ko ni loolu moo doon point bi gën a essentiel ci wàllu révision bi ñu jëm ba tax na ñu ne woon su fekkee ni président at yooyu dafa ëmb ëmboon na bakkan nit ñi di ko xaar di ko xaar ñeenti at mu imbi indil ñu lu amul bakkan ne dinañ ko tudd ñu wax mu ne falaa bu dee dinañ ko tudd ñu ne ko nag ñun ku dee kenn du ko tudd dañ koy robbi te dañ koy gaaw comme nu ko alxuraan waxee su ma amaatahu fa axbarahu li ñu war ñun ñëpp mooy lan révision bi baaxul parce solo sa jóge na ca mooy li mu imbi amul bakkan dafa dee dañ ko robbi ñi woo waa Xombol ak waa Sénégal yëpp ñu jug takku daw ca ba muy gaaw jël révision bi taxañ ko delloo ko ko loolu mooy premier point bi nga xamante ni lu jara a dénoncé la euh, leneen li ci topp mooy implication yi nga xamante ni moom la référendum bi am parce que coow li bëri na nit ñi naan dafay xóotal suñu démocratie ñii naan dafay xàll jëm yokk suñu économie mais ñun càmbar biñ ci am wax dëgg ci yàlla bu fekkee ni dañ ko indi ci wàllu mu jagleel ñu ay droits yu bees comme ni ñu koy waxee ñun dañoo jàpp ni li ñu amoon fii ci Sénégal ci suñu droit yoon may ñu ko dañ koo matalewul olof dafay wax ni ku sa xoddaay jotul doo booti ngemb kon ñun li ñu bëgg mooy ñu consolider ñu lu ñu yoon may suñ ci jëlee ci ay pàcc bu ci njëkk tey jii nee na dafay renforcer assemblée nationale kenn umpalewul ci yéen ni assemblée nationale moom moo war a contrôler budget bu Sénégal ñoom li ñu leen dénk ñu koy tiitaroo am nañ 3000 milliards am nañ cent milliards ñu koy tiitaroo ne exécuté nañ ko dafa am loo xamante ni moom la ñu ci war a jox à travers l' assemblée nationale muy la loi de règlement yu assemblée nationale war a voté ci mission yi ñu leen dévolu yu ñu leen sant sas mooy xam ni seen mooy seen mission première avant ñu leen di dolli leneen loolu dafa sooxe ndax tey jii loi de règlement yooyu nga xamante ni at mu ne yoon dafa wax ni laataa ñuy voté benn loi de finance initiale loi de règlement boobu dañ ko war a voté pour xamal sénégalais yi budget antérieur bi xaalis bi na mu tolloon lii ak lii moo dugg fu ne loolu si gàttal maanaam mooy mel ni loi de règlement suñ ko indee ci niveau ñu ne fii ku ne ëmpalewul ni at bu jot maire yi nañ indi compte administratif pour ñu xam suñu dërëm yëpp fa la dugg mais ñun tey ci Sénégal assemblée nationale ak ñuy jiite xamuñu suñu dërëm yi fi weesu fan la dugg ñoom bañ fi toogee jirum ñeenti at benn loi de règlement lañ fi voté en 2014 pour l'année 2012 te loolu dafa indi woon ay jiixi jaax ak coow lu rëy ci réew mi ndax amoon na ay ay mbóot yi fa nekkoon yoo xam ne bëgguñu ñu xam ko te bañ koy voté jamono boobu en 2014 ñoo ngi bàyyi ba juin ba yenn ci député yi nga xam ne ñoo war a def loolu dem cons euh, ci élection locale yi ñu profitoo dem def ko te biñ koy def joxoo ñëw rapport de déclaration générale bi nga xam ne war a jugee cour de comptes pour certifier compte yi gestionnaire public yi ñu def ñu jox ko président assemblée mu nëbb ko député yi mu indi fi coow kon tey ñun bu ñu gisee nii ci lu ñu yoon may am na ci loo xam ne matale wuñ ko muy suñu dërëm ñu ne dañuy dolli leneen dañ duñ ko mën a gëm ay naxee mbaay la am na leneen loo xam ne réforme moom la nëbbu ñu bëgg koo gobee boobu bokk na ci point yi nga xamante ni tax na ñun ñu ne dañuy refuser li nga xamante ni weesoo kàddu gi bu fi joxe mooy réforme yooyu di am leneen li ci des te mat a jàpp aussi ci point yi am solo yi nga xam ni tax na ñun ñu ne dañuy dàq euh, référendum bi dañu ne dañuy consacrer ay droits yu bees loolu nag moo lëmbee réew ci Sénégal ñun duñ ne droit yu bees yooyu borom ñaari tuur yi lañ ko jagleel am na yu ci xàll wax ko le droit à un environnement sain mais loolu amoon na fi yéen ñëpp su ngeen jàngatee constitution bi fi nekk te mu résoudre ñu instant bi ci article huitam ñoo ngi cay wax ni dañoo war a am droit à un environnement sain tamit day delluwaat ci la mu doon wax liñ fi yor matali wuñ ko ñu ne dañuy dolli leneen di ci yàq ay milliards loolu gisuñu njariñ bi instant bi fi ñu toll beneen bi mooy bu dee droit yooyu li lëmbee wax ji président Obama ku nekk ci àdduna xam na ni tànk yëpp yu muy dox mooy wër di légaliser mbirum góor jigéen ci àdduna yi ba mu ñëwee suñu Sénégal en 2013 suñu njiitu réew ñu jiite ko gardien de la constitution chef suprême de la nation xam ne ñun suñu àq suñu yelleef suñu constitution consacré wul loolu liñ doon xaar ci moom moom mu am ak mat ne ko Sénégal loolu du fi am mais réponse bi mu ko servir mooy lan la société sénégalaise ne pas prête pour accepter loolu loolu dafa lënt tey ñu dem ñu ne dañuy consacrer de nouveaux droits ndax dañ ñu pour tey ñu accepter loolu ça laisse avoir question moo ngi en suspens ñun ñëpp war nañoo tey nag bu fekkee ni ci loolu lañ ñu bëgg a dugal ah ñu nekk ay co-auteur ñun ndax dañuy pare tey pour engagé wu foofu nañ ko xoolaat bu baax nañ ko lu jar a xool a ngi noonu ñun de loolu bokk na ci lënt-lënt boo xamante ni dañ ne constitution boobu dañ koy dàq parce que pare wuñu pour di dugg di adopté ay yeneen mode de yoo xam ni cosaano ko suñuy maam bàyyi wuñ ko fi keneen bàyyi wuñ ko suñ demee sur le plan économique ñoo ngi naan ñu dafa am ay incidence ndaxte suñu gouvernance locale dafay yokk ak comme comme réew mi situation yi nañ ci yëg suñu bopp ñun dañu ne réforme bi sur le vécu quotidien des Sénégalais amul lenn lum ciy indi au contraire dañuy gën a suuxal ndaxte dañ ci consacré benn institution bu bees boo xam ne ci prééminence après gouvernement moom mooy ñëw muy haut conseil des collectivités territoriales suñu fàttalikoo si jamono bu yàggul dara fii ci Sénégal bu nit ñu sonnee lool am yaakaar ci Macky dañ ko faloon ndax dafa amoon ay postes yoo xam ne dañoo gisoon ni c'est budgétivore budgétivore comme ni ñu koy waxee dafa yàq xaalis amaan masala lu ci mel ni seenaa bi ñu pression mu dindi ko tey mu bëgg indi loolu ci beneen porte tuddee ko neneen ñu nat faa fal ay nit di leen jox ay indemnité jox leen ay véhicules roulants jox leen ay fonds politiques di leen fay mu ñuy coûter au maximum au minimum entre huit milliards jëm fukk jëm trois jëm huit milliards par at or que suñu parent paysans yi jàngalekat yi docteurs yi ñun étudiants yi ñëpp ñoo ngi jooy ci àdduna bi xaalis boobu dañ ne au lieu que yokkuluñu dara daf ñuy wàññil te tamit dafa am leneen loo xam ne moo ciy lënt parce que dafa amaat benn coïncidence boo xam ne sax mën nañu wax lu malheureuse la mooy dafi fal jamono yu yàggul dara Djibo Leyti lu ñuy wax commission nationale développement des territoriales des territoires loolu dañoo jàpp ni moo ko collectivité dafa am ay chevauchement yoo xam ne moo ci nar am soit loi organique bi dikkagul mais mën nañoo njort loolu ba tax na dañ ne soxlawuñu doublon boobu yàqum xaalis la te mën nañ koo jariñoo ci leneen loolu bokk na ci critère bi nga xam tamit tax na ñu ne nañ dañuy rejeter li nga xamante ni mooy constitution bi ñu ñuy ñu ñuy jox moo tax nag ñu ne bu ñu résumé waatee ci kàddu yi beneen point bi nga xam ni tamit am na ci solo tañ ci woo Sénégal yëpp mooy dañ doon xaar au moins bi mu defee projet bi bu dugal ko conseil constitutionnel bu ñu génnaatee mu def disposition transitoire buy wax ni jamono bu nga xamante ni wii gagné na moom mandaam bii dañ koy décompté su ko defee du mën a àddu jëmalaat ci yeneen ñaari mandat bu nekk bu juróom fekk si bu juróom-ñaar bi muy fukk ak juróom-ñaar mu indi lënt lënt ji yeexal nit ñi ñoom nag dañuy def di wër naan fukk ak ñaar moo gën fukk ak ñeent ndaxte président dafa tëj constitution bi kenn doot fi sañ a toog nu la neex déedéet demeewul noonu dañu bëgg ngeen xam li xew mooy constitution bi ñu tënk jamono yi li mu wax mooy bépp candidat bépp président bu ñu fal ñaari mandat nga droit bu nekk sept ans loolu su ngeen wàññee mooy fukk ngeen mu leer naañ ca la mën a tey su non bi gañee sa leem mais bu wuy bi gañee constitution boobu nga xam am na si juróom at dafay dee su faluwaatee mu am juróom mu fekk si juróom-ñaar yooyu muy fukk ak ñaar bee dee na kenn dawu ko woon wàññi su ko neexee mu wul yootu beneen su ko amee muy fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar moo dàq moo ëpp fukk ak ñeent kon entre deux mots comme ni ñu koy waxee bu fekkee ni mal lu bon am na ci choisir le moindre mal moo gën te ñun sur ñun mooy bàyyi sept ans pour ñun loolu mooy bàyyi sept mais loolu dëddul yomb su fekkee ni ëllëg bëgg na ko parce que jamono bu yàggul dara am na ñu ko fi doon tànte mu am accouchement bu douloureux bu ci am ndax fukki nit ak ñaar ci sénégalais ñàkk nañ seen bakkan te tey jii moom nee na dafa ko ci disposition transitoire mais dina sàmmonteeg kàddoom. pour su amee ñaar du wut ñett waaye dafa bu leen fàtte dafa am lu olof wax mu ne poste pexe xel la sa jikko moo koy xamul sa jëfoo koy yàq boo ko gis xam li nga nar jikko mooy lan wax na fi weddi ko jëfa mooy lan dafa taxaw néew digaale bàyyi ko ku jëf jikkowoo dara suñu diggee nañu su defee ñaar dina bàyyi duñ ko gëm li ñu doon bëgg moo di ñu wax ñu lu leer ñu bind ko ne su amee ñaar dina bàyyi ñu defuñu ko te parewuñu tey ñun pour nekk ay co-responsable wala ay caution ay trouble yi am ëllëg Sénégal ay nit ci ñàkkaat seen bakkan ñuy woowaa Sénégal yëpp ñu xam ne lii moo nekk ci yoonu révision bi ñu teel a jug dëxëñ ko jël noo dàq ko lii nag lenn ci point yi nga xamante ni ñun jàpp nañ moo gën a ëpp solo li war a tax ñu dàq noo bi waaye du lii kese su fekkee ni